Cosmétique. Mesdames et messieurs, laissez-moi dire, vous présenter le directeur général de King Cosmétique et l'ensemble du personnel. On le plaisir de vous inviter à l'inauguration de King Cosmétique à Touba, la ville Oui, messieurs, dames, retenez bien la date, le vendredi mai à Touba Corniche Daaru Jolof. Am mbokki Sénégal, mbokki àdduna wërngal këpp. Seen ji nga xam ne bi en 2009 2010 ca Mbacké ak Touba doon def porte à porte di dugg ci kër Mbacké Mbacké yi di jaay Ndakaaru Ndiaye Jal fi nga xam ne moo di Kër Massar Pikine Thiès ba Gambie oui mesdames King Cosmétique a déjà sept places au Sénégal et bientôt dans tous les régions du Sénégal وإني لا قولي أوب بي أبا لربي عمي ثم سكري بلا انتهام waaw waaw mbokki Sénégal ginnaaw bi mu démarré 2009 ba 2010 daan dugg ci kër mbàkke mbàkke yi daan leen jaay lépp lu jëm ci cosmétique tey tànk yooyu ñoo mujjee doon li nga xam ne moom moo di ay place fii ci Sénégal am na nañu juróom ñaari place yi fi nekk te léegi-léegi rek ñu daal di dem ci région yëpp ubbi ko suñu ay place King Cosmétique لي بر من خلا وساركنا للخل لي برما ينبى مدادي وأقلامي ولوري وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان ولوحي وكالكبير وجسمي لمن لي وجالي سوى الوهبان نويت له شكرا كثيرا كما ما جنابي واسفي يوم الجوى الأخبار لا à Touba Corniche Daaru Jolof infoline 77 699 99 62 King Cosmétique le meilleur cosmétique au Sénégal